maanaam fi mu jëlee jàngoro ji ba fii euh, mënu koo xam euh, kon nag fii ñu toll ci réewum Sénégal bi fi jàngoro ji duggee ak léegi ñetti téeméer ak fukk ak ñeent euh, si ay doomu aadama la laal kon nag téeméer ak juróom-ñeent fukk faj nañu leen ba nu wér maanaam 190 ñu tollu ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom la jàngoro ji tëral bu loolu moo ñu may nag ñu wax ci 15 euh, cas yi nga xam ne mooy euh, démb quinze cas yooyu dañoo jàpp ni Louga am na ci euh, benn dakaar Nord am na si juróom-benn ci ay cas yëmbal am na si juróom benn cas waaye nag Goudiri moom it am na ci benn cas Ziguinchor la ñu wax ne moom moo am cas communautaire bi woon démb ndax quinze la 14 yi cas contact benn bi di cas li nga xam ne rek moom mooy communautaire kon Ziguinchor la ñu wax ne foofu la cas communautaire bi daal di bawoo loolu moo ñu may. ñu euh, dem ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, bilan détaillé bi ndax gox bu ci nekk diwaan bu ci nekk jot nga sa wàll ci li nga xam ne moom mooy jàngoro coronavirus gi ni ngeen ko gisee nii Dakar Ouest am na deux ci ay cas Dakar Sud. 52 deux la am euh, Dakar euh, Louga am na nag 28 euh, cas gis ngeen Louga cas yi nu mu commencé bari ndax mi ngi woon ci suuf léegi moo nekk troisième position Louga 28 cas la nu fa nemmeeku Touba 27 cas la ñu fa am Dakar centre 20 cas Dakar nord 15 Mbour ñu daal di fay am mbuur ak Yëmbal 13 cas la ñu fa am Pikine Guédiawaye 11 Thiès ñu am fa 10 Goudiri 9 Vélingara 7. Rufisque Sangalkam 6 cas lañ fa am Kër Massar 5 euh, Saint-Louis ñu am fa euh, Saint-Louis ak Mbao 4 cas lañ fa am Ziguinchor Popenguine 3 cas Diamniadio am na ñaari doomu aadama yu fa am euh, jàngoroy coronavirus gi Richard Toll am na kenn ku nga ak Fatick kenn la ñu jàpp ne ñoom ñoo fa am jàngoroy coronavirus bi bu ñu fàtte nag bu ñuy wax ne kon par exemple Dakar Ouest 70 cas moo fa am yëmbal ñu ne 13 cas moo fa am ça pas dire que ne loolu moo fa am ayta ñu dem ministère de la après ñu ñëwaat. mu kon waa ministère nee nañ ma ñëwaguñu kon dañuy continuer ba tey bu ñu waxee ne kon 62 cas moo am Dakar Ouest ça ne pas dire que ne ñi nekk sous traitement 62 la ndax si 62 yi am na ñu nga xam ne euh, fekk nañu leen euh, benn weer kon nag bu ñuy jowaat bu ñuy wax ne localité temps am na temps de cas kon nag bu ñu fàtte ne du ñoo ñëpp ñoo tëdd ndax jamono ji ñoo ngi fecc te ñaa ngi euh, wér si 27 cas communautaire la ñu amagum fii ci réewum Sénégal moo tiital li nga xam ne mooy askan wi bu ñu bu tey sax du ñu bett benn yoon bu ñu gisee ministre bi wala euh, ki nga xam ne moom mooy andi bilan bi tey bu waxee ba noppi euh, keneen ñëw annoncé yeneen mesure bu mu ñu bett ndax kaa communautaire yi moo ñu sonal te kaa euh, communautaire yi faw ñu jël si ay matukaay donc nee nañu ba démb 27 cas communautaire la ñu la ñu am professeur Moussa Seydi si ak fàttali nee na ngir ñu xeex cas communautaire yooyee mën nañoo bañ a dem confinement général confinement total jël askan wi lël ñu daal di lëlu ñoom ñëpp mën nañu rek digle ay masque kon nag ñu généraliser port de masque yi kon nag képp kuy génn professeur Moussa Seydi ngeen koy gisee nii moom moo doon xam ne ni bu ñu bëggee jël askan wi yëpp ñu lëlu dana metti lool ndax loolee dafa laaj ay matukaay ay euh, mesures yi nga xam ne ni moom moo ci war a moom la war a àndal te loolu nag dana metti lool ngi ñu ko fii ci réew Sénégal li ci gën moo di ñu sàkku ci askan wi ñëpp daal di takk ay masque su ko defee nag euh, ñu mën a mucc ci li nga xam ne moom mooy kaa communautaire yi loolu moo ñi may ñu dëkk ci confinement bi fii ci réewum Sénégal ndax xam ngeen ne kon lu toll si ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn euh, ci ay doomu aadama jamono ji euh, ñoom ñooy dund confinement boobu dañ leen confiné euh, loolee nag ka ko xamle moo di directrice générale bu action sociale Aram Top Sen nee na ñoo ne nag ñu ngi leen tas ci lu toll kon ci fukk ak fukk ak ñaar ci ay hôtel bu dee diwaanu Dakar ñu ngi fi confiné si douze hôtel Louga lu toll ci euh, cinq sites la ñu tànn daal di euh, confiné ñi nga xam ne ñoom ñoom la mbir yi euh, maanaam la ñu njoxtu ni affaire bi mën nañ koo am gu benn site la ñu fa am Thiès ñett ci